ay est-ce que waxi mbër ak jëfi mbër jar naa dóor sa doom déedéet yaakaaruma ko bu nu gisee Ada Fass mi jàkkaarloog Aziz Ndiaye léegi ci li nga xam ne mooy contrat bu mu wàññikuwaat wane ni contrat bu am la tey dina bëreeg Liss Ndiago jàpp nan date bi mais damay mujj sax man ma waaru waa ci image yi nga xam ne maa ngi leen koy proposé ngeen gis ko ah, kon dafay jàngale rek ci li nga xam ne moo am nii ah, ci diggante maanaam alburax bi nga xam ne Aziz Ndiaye yëkkati na ay kàddu ah, démb wala bërki démb bu man di doon xayrut nii moom mii di Liss Ndiago na lu toll ci daanaka lu jege juróom-ñetti million ak oto boo xam ni jar na fukki million ak ñaar teg ko ci loxoom bu euh, day bëree ak ki nga xam ne mooy Liss Ndiago te yeneen kàddu la doon dégg moom mii di Liss ak waa këram wala boog ay ñooñam di ko wax kon gars yi nañuy def attention ak li nga xam ne mooy waxu yenn mbër yi lu question damay wax ma ma jël mbër yëpp teg leen foofu mais non non or que demewul noonu parce que li dafa nekk loo xam ne nag wax dëgg yàlla su fekkoonte ne ñoom Assis Ndiaye ak euh, kii di Baye Ndiaye génn ñu joxe seen xalaat euh, bëgg a euh, menacé pour génn li nga xam ne mooy contrat yi kon bu boobaa affaire yu demee ni gars yi dañuy defa demee wax euh, réseaux sociaux yi noonu dem tekki lu leer mais nag dafa fekk ni Aziz Ndiaye ak ñi nga xam ne mooy bàyyi Ndiaye ak ñi mu àndal maanaam dañu yeewu car masha Allah te li nga xam ne mooy mbirum technologie bu bees yi Euh, ndax fa nga xam ne fa lañ doon defee mbir meeg lépp ñoom pour mën di taxaw yow di joxante yow xaaj day am ay preuve soo ba weddi ko dañ lay génneel ay image génneel ay contrat yu leer naññ teg seeni mbir ci wàllu làmb ji ci la ma xalaat lu leer naññ moo tax néexunoo euh, jima maanaam diiraan bagg ci yenn bagage yi gars yi dañuy àndandoo diglu Liss Ndiago ci boppam wala boog diglu ki nga xam ni ah, mu nekk Ada Fass kaddu yi nga xam ni yëkkati na ko ah, bi mu jàkkaarloog Aziz Ndiaye mu nekk kaddu yoo xam ni di ngeen ci am ay surprise ah, dañ koy diglu mais bala ñu koo diglu ma leen jàmm sàkko ci yow mii nga xam ne yaa ngi door a def seen bi nga abonné ci Aladji Malick TV ndax abonnement yi dana tax lépp lu ma mën di dugal rek da koy man di am ci en temps réel gars yi ñu àndandoo diglu ki la nga xam ne nag moo nekk Ada Fass bi mu jàkkaarloog Aziz Aly Ndiaye. Aziz Ndiago li ngeen ci doon dégg lépp ci wàllu coow yàlla def na jeex ci jàmm actuellement Ada ñëw na pour remplir son contrat avec Aziz Ndiago Sénégal lii rek moo fi baax mooy jàmm waxtaan ba déggoo xam naa ni déggoo nañ léegi Ada Fass dina bëleel Albourakh le 20 juillet incha allah diggante ak Aziz Ndiago kon boog Ada yaa ngi koy waaw sama gars yi noonu demee incha allah le 20 juillet xam nañ combat Aziz Ndiago Albourakh dinañ ko waaj kër yoon waaye suñu làmb yi mais daal fi ñu jëm incha allah bu jeexee ñu nag alburax la waaw le 4 avril Arafa la dëggeer bu jeexee Arafa di jaaga le 20 juillet di wax sama gars yi noonu la demee yaa ngi ko déggandoo kon amul dara lu ñuy xaar sport la rek sport la yéen samay grand dama yàgg mooy chance te liis ne ko sama grand son morom la laa boole da gars waaj waaw xam ne laa mañu taxaw na la 20 juillet sa kaw ca kanam ndam rek incha allah rabbi di jaajëfal sama grand bu baax ndaxte wax yi bu xawoon na bëri xawoon na bëri tey jaru ko suñu grand suñu papa la te espoir la rek tey jii Sénégal dafa xat tey jii làmb la tey ñoom amuñu seen fay ñoom ñoo ñuy dooleel mm-hmm. bu nekkoon ñoom ñoom ñun ñun duñu bëri mm-hmm. waaw di jaajëfal ñëpp tamit waa di di ñëpp di di di jéego tamit si wax beeg lépp nañ bàyyi lépp mu seet xam na ne ñun ay ndaw lañ mm-hmm. eh, te yoonu ndaw tamit la ñu wax du gaaw eh, ay mbër lañ ay ndaw lañ si espoir ñu jaajëfal ñëpp. kontaan nañ gars yi wasalaamaaleykum. jaajëf Liss Ndiago li ngeen ci doon dégg lépp ci wàllu coow yàlla def na jàmm na ci jàmm actuellement Ada ñëw na remplir son contrat avec Liss Ndiago Sénégal